ak bokk bi ko yàlla sakke bëggu ko wàcce dafa jooy jooy yu metti mu ne ko looy jooy mu ne ko damaa xam ne boo ma wàccee danañ ma dog te man bëgguma ku ma dog mu ne ko ndax du la gërëmloo ku la jokk ma jokk ko ku la dog ma dog ko mu ne ko aha mu ne ko kon wàccal noonu laa koy defee ak bokk door a wàcc Baye Isma nag yàlla dimbali ko ba mësula la jooyloo ak bokk Seydina Omar ibnul Xattaab radiyallahu anhu sama turandoo moo waxoon ne ta'allamu min aslab min ansaabikum maa tasiloona bii arhamakum xam lu leen ci seenu askan lu ngeen mën a jokki seenu bokk Baye Isma fu mbokk nekk xam na la mbokk ak moom te jokk na ko jokk na ko ci dox jokk na ko ci wax jokk na ko ci jëf fu mbokkam nekk rek xam na la mbokk ak moom te jokk na ko noonu ma ko waxee Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo wax ne ay bokk dañoo war a mel ni ay birig yu na yu nangoo taxaloo mooy tax lu ñu bëgg a tabax man koo tabax Baay Isma nangu naa jiital ku ne topp ci moom bu ko wóoree ne kuy defar la lu dul loolu nag du ko nangu loolu moo tax li jokk ak bokk di jariñ lépp gis nañ ko ci moom boroom xam-xam yi ñoo ne fa inna silati rahimi mahabbatun fil ahli masratun fil maali mansatun fil asar loolu la jokk ak bokk di jariñ dana tax sa ñoñ sopp la dana meññal alal dana dolli wërsëg yu bare bari mën naa juddoo ci jokk ak bokk bokk na ci njariñ yi jokk ak bokk dana tax a gudd fan dana sàmm ab der dana tax say bokk rafet njortu ci yow te loolu lu am solo la Baay Isma ab jëwam ci bokk gi benn la bokk yépp bokkan lu ñu ma lu ñuy seede ci moom ñi yàlla jox xol yu sell ak xel yu rafet laa wax ñoo bokkan li ñu seede ci moom fuñ ko mos a séen wala ñu dégg ko fa seen xel dal ndax xam nañ ne day defar rek waaye du def safaan ba pirim Serigne Touba nag mi mu firi alxuraan ak hadis ci ak bokk moo gën a mën a wone doxinu Baay Isma ci bokk Serigne Touba li mu wax ci bokk lu baree bari la te ku ne gis na ni mu doon dunde ak i bokkam kon bu ko diglee jëfe ko soññe ko wane na aw yoon te ci loolu la nekkoon ñim bokkal ñépp kenn ku ne cër ba yàlla jox ci bokk da ko séq ak yow door a séq ak yow cër bi bàyyi ko ci yàlla li wax ci bokk lu bari la waaye yett rek laa ci indi nu man cee xame baay isma sëriñ Tuubaa dafa wax ne li war ci ay bokk mooy bokk yéene bokk pexe bokk lañu am Baye ma nag yéeneem ak pexeem moo doon lu dundal ak bokk di ko yaatal te ci loolu la jeexal am amam Baye ma lu mu am bokk na ko ay bokkam Sëriñ Tuubaa nee na nit mën naa ëpple ay bokkam waaye mënu a ëpp nit mën naa gën ay bokkam waaye mënu leen a génn nit mën naa raw ay bokkam waaye bu leen négul aw doxinam du rafet Baay Isma musta dem bàyyi ku war a àndal musta sukk bàyyi war a bokkal jikko ju rafet la yoroon waaye nag daana nattu nit Baay Isma baal ma càmmal daana nattu nit te bu lay nattu du la ko wax waaye bu nattoo ba jox la diplôme nga xam ne natt woon na la ba Isma daana nattu nit ci bés julli sax dana ci nattu nit daana nattu nit ci wax bu kenn dégloo rek mu doy ku ne la ko ñor ma nga ca te déglu leen moom bu baree rek di coow dama ne Baay Isma daana nattu nit ci yennat daana nattu nit ci bés daana nattu nit ci julli daana nattu nit ci wax lenn rek laa gis daawu ci nattu nit de muy ab jox-jox waaye am na lu jiitu jox-jox sax te dana la ca nattu te moo di lu ko mos a yitteel ba jaral ko jóg bu gestoo fekk gis la ci ginnaawam xolom sedd waaye du jox-jox kon la mu doon dund bëggoon na lool ku àndak moom di ko dund yàlla nañ ko yàlla fayal sëriñ Touba mos naa laaj mag ñi ne leen ndax xam ngeen luy waral kuy kër këri ci aw yiw ba ñu yaakaare ko aw yiw mu dem ëllëg fekku fa dara ñu ne ko déedéet mu ne yaar rekk a koy waral yëg sa bopp ak xeeb sa mbokk yëg sa bopp ak xeeb sa mbokk lu ci ne day xañe aw yiw lu mata moytu la ku dul baril aw yiw te du moytu aw ay gëmul yàlla tab jaam mënta am ndimbal lu bàyyikowul ci ak gëm yàlla te aw yiw dara gënu caa la nga am nga bokkook say bokk bàyyi isma nag da koo xamoon bokk na ci mag ñi nga xam ne loo wàññi ci darajaam xam na ko loo yokk ci darajaam xam na ko ndax du woon ab dof Cheikh Ibra dafa wax ne radiyallahu anhu ak bokk bu ñu bëggee mu dund ki xam buum gi na koy waxtaane ki woyof na koy dox ki tane nay dimbalee bu ñu bëggee bokk yi dund la wax de yett yooyu moo tax mag ñi ne lii de yett yi defar ak bokk benn saxu ci kawar benn saxu ci kawar tànk biy dox làmmiñ wiy wax loxo biy joxe benn saxu ci kawar moo tax Cheikh Ibrahima ne ki xam buum gi na koy waxtaane ki woyof na koy dox ki tane nay dimbalee lu jafe la nag ci jamono ji nu nekk lu jafe la ku gëm yàlla lool te doyloo ko moo ko man ndax fii ne boo jógoon am woyof ak bëgg a dox sa bokk ñu jàppale ku ñàkk fayda fii jamono toll loolu lañuy dund boo amee laa biru bëgg a wax diw kii kii lu ñu bokk boo sàgganee ab woyaankat lañ lay lañ lay soppi te yaar yooyu yaar yooyu ku ñu wër boo amul ni ma lool doo mën a dimbale ci ñi ña ndax ña ci ëpp dañ lay jay duñ la wax dëgg moo tax yett yooy yomb na ci dégg waaye lu jafe la waaye ku fexe ba xam la la war nga nekk ca te yar ca sa njaboot ni bàyyi isma mii def yàlla mën na la musul ci ci yi xew léegi kon bàyyi isma yàlla nañ ko yàlla fayal sëriñ Tuubaa bi mu wax li war kilifa ci njaboot bokk na ca lam wax wa minhu tarbiyatuka al awlaada li kay yanaalu baxdaha rasaada njaboot dañu leen di teg ciw yoon mooy tax bu ëllëgee ñu mën a tege ci yoon tege ciw yoon te mën caa tege Baay Isma nag loolu yàlla dimbali na ko ci moom daal yàlla nañ ko yàlla fayal aw yiw te yàggal fi njaboot gi te sàmm leen ba ñu àggaleel ko yéeneem ci sëriñ bi ak yéeneem ci bokk gi ak yéeneem ci wëllëre yi li tax jamono jii nu toll ma ne ku yàlla jox njaboot war ngaa tiit wala boog nga am looy teet ndax ku gëm yàlla sax mën naa bañ a tiit waaye dana teet te jot na sëkk fi mu nekk nag ñu am njaboot ñu fugluwaat teeyluwaat seetluwaat ni jamonoy doxe ñaan sunu borom may leen kàttan ba ñu mën a téye seen njaboot ci fañ ko war a téye ndax lu jafe la fi mu nekk nii kuréel yi jóg di këf xale yi di fëkk jigéen ñi kenn xamul nu mu toll moo tax farlu jot fi mu nekk nii te far te fayda ak fulla ak farlu sëriñ bi da ko daan dénk mag ñi di leen ci soññu sëriñ Tuubaa nee na fayda ak fulla ak farlu dee leen ci dee leen ci góorgóorlu mag ñi nga xam ne yàlla may na leen. ñu am xalaat yi mën a waxe sëriñ bi ñoo ko laaj mu teqamtal leen ko mu ne leen fayda de moo di loo nekk boo nekkee ci mbir nga yemale nekk ci yow dong ak nga ak nekk ci ak junni lala ca war nga ne ca rek ne loolu mooy fayda ne leen fulla moo di loo sori sori ci mbir fu ca lu baax yam nga yem fa jafe na de loo sori sori ci mbir lu fu ca lu baax yem nga yem fa moo tax as gor du wees du wees a dëpp du gaaw a dëpp nag waaye du weesa dëpp ndax la muy seet la koy conduire moo tax nee na farlu moo di loo loo seet ba xam ne baax na nga sàkkal ko waxtu di ko jot bu waxtu wa jotee loo xat-xat nga fexe ba def ko loolu mooy farlu loolu nag la ca yóbbu nit mooy ni doom ni yàlla bindee doomu aadama nga xam ne ay tolluwaay la nit day nekk xale nekk gone nekk ndaw loolu moo tax jaboot war war di góorgóorlu te xàmmee yooyu xale dañuy naxanteeg moom xale dañ koy nax gone dañ koy yar ndaw dañ koy taxawu Sëriñ Tuubaa nee na xale ku ko xañ nguur dajeeg buur nee na gone ku ko def buur dajeeg buur nee na ndaw lu mu def dajeeg boo kon gone dañ koy nax xale dañ koy nax gone dañ koy yar ndaw dañ koy taxawu loo ci jaarale fa mu war a jaar nag boo yeggee ca fa nga war a taxawee ci moom rek lu jàppandi lay doon ndax xale bii ngay nax di naxanteeg moom mën ngaa xam ci xelam li nga xam ne moom la suñu borom nar ci moom ba boo ko yar nga yar ko ca loola. boo ko ca yaree ba noppi itam bu demee ba war a doon ndaw fa muy doone ndaw dana fekk yar nga ko mu mu miin la te du la yàbb loo bëgg a taxaw loo bëgg a def ci moom danga ko mën def ci moom loolu moo tax boo toppee silsila bi rek léppay noppale Sëñ Tuubaa kenn xamut lu doon yàlla nañ ko yàlla fayal loolu nag ku yàlla jox kilifa gu mel ni Baye Isma am nga sas wu rëy sas wu rëy nga am wax naa fii bu yàggul rekk ne euh, euh, sa maama baax sens la waaye aw sas la aw sas la sas wu rëy sax te aw sas nag jom ak ngor ñoo koy bay te Baay Isma nag yàlla xam yàlla yàlla dogal na moom yaar yooyu yar na ko ci njabootam yàlla na leen yàlla musal ci cat te àggale leen seen ci barke Sëñ Tuubaa yaakaar naa ne bu mu toogal fi di waxtaan ba suba li nu xam ci baa Isma ak kilifa yi mu seqal jamono. du jeex te sëñ Ablaye Seck ngi ni toog di borom bés bi tey dégg naa sëñ Mbow li mu wax léegi nee na jëf rek am solo wax daanaka amul solo kon wax ji jërta baril ñaan sunu borom àggaleel nu suñu yéene rek waaye njabootu baay Isma gannaaw bu ma leen sante sama cantu bopp gërëm leen ñaan sunu borom boole nu àggaleel nu suñu yéene. danaa leen seedeel cantug Serigne Sidi Mbacke moom ami dun ci man Serigne Sidi Mbacke moom sëñ Amidun danaa leen seedeel ak cantam ci man sant naa ko tuuti naa ci loolu nag waaye bëgg naa ko ma ci jàppale ndax moom daf ma boole ci njabootug sëñ Amidun Mbacke boo gisee ma di ko daw day def su ma gisee rek lu ne fa moom rek da koy daal di bëgg jël jox ma. te dara taxut lu dul ku démb moo tax maa ngi leen di seereel ak cantam di di sàkku nu ñaanal nu ñaanalal ma ko yàlla gën ko fee yàggal tàggaleel ko yéenam ci barkeb Serigne Touba ak mbooleem njabatu siriñ Modou Mamoune gépp ñëpp noonu lañ mel ci man seen jur wii di Serigne Abo Mbacke Mouhamad noonu la mel ci man sant naa ko moom itam seedeel leen ko mbooleem ñi nga xam ne ñoo fi nekk di ay kilifa ci Darou Salaam gi kenn ku ci ne. lu ma amul ci moom ci man la waaye ñoom ñëpp ñoo ma teg ñoo ma jox cër boo xam ne ak bokk tax na kóllëre tax na maa ngi leen koy seedeel maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp rabbul karimu naabiul xat jalla wa xadrakal asima xata jalla xat jalla wa مسلما عليك فوق عددي بالآل وصحب وزاد مددي يا من لتصديقك قد سق القمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل وصحب بالانسرام من بك جملة سنوبي خفرا وكلما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتخى يا مجتبى صلى عليك من عداك واتبى يا مصطفى يا منتخى يا مجتبى صلى عليك من عداك واتبى يا مصطفى يا منتقى يا منتقى صلى عليك من هداك واجتباك مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الخر وقاد للمرام ولسواي نحيا والسقاء كف وما يحرمني ارتخاء وجادني بكثرة التلاوة والشكر والصلاة بالحلاوة وجادني بالحلم والأعمال وبالتعدب وبالكمال يا سيدي يا بقيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم خدا حما بك علينا وعدا مانعما وكل ما استقتل إليه قادا لك بلا مسقة فانخادا مسلما عليك يا مختار وليساخ كل ما أختار دنيا وأخرى بك سلام من الحساب ومن الملام